Kifna TV moom mi nekk ci suñu kanam nekk ci suñu xol yi ba nekkal ñu fu ñu nekkul Kifna TV Sénégal

non seulement pour nous un signe de reconnaissance, mais aussi de réussite pour notre école. Monsieur le maire, nous saluons en vous l'homme qui incarne le changement. Qui conduit désormais, qui conduit désormais la destinée de Médina Vu à travers cette grande ouverture, le désenclavement qui vient de commencer, de l'électrification que nous avons bénéficié et des extensions d'eau, sans oublier les inondations de 2021. Cette visite se situe aussi au moment où des nouvelles perspectives vont s'offrir à notre village qui est en train d'ouvrir une nouvelle page de son histoire. Au nom des collectifs, au nom des collectifs des délégués de quartier, ainsi qu'à celui de la population, nous vous prions, Monsieur le ministre, de recevoir aussi nos voeux les plus chaleureux pour vous-même et pour le bonheur et la prospérité de notre belle commune de Tangalkam. Et recevoir le meilleur voeux de, bonne année de 2022. Et que 2022 soit une année de prospérité pour tous, une année d'ouverture pour tous. L'année 2022 est devenu pour nous un signe, un signe de bonheur. Inch'Allah Inch'Allah Cette année 2022, mon collègue m'a dit tout il n'y a pas de chiffre 1, il n'y a que des chiffres 2. Je remercie le collègue et le conseil qu'il m'a donné. Ce chiffre 2 nous représentera le 1 moins plus le 2, ça fait 3, et que le 23 janvier, nous irons vivre. des collectivités territoriales, l'aménagement des territoires et le développement des territoires, monsieur le maire Oumar Gueye, maire de la commune de Sangalkam, Dalal ak jàmm. Madame l'inspectrice, Madame Dramé Fatoumata Diallo, bienvenue. Monsieur le chef de quartier, bienvenue ñu ngi leen di jaar ñu leen sant di leen gërëm seen teewaay. monsieur les membres di collègue ñu leen di ziar leen dalal jàmm monsieur et madame les membres du CGE comité de gestion de l'école monsieur le président du CGE Ousmane Kang sama waay maa ngi lay ziar bu baax a baax monsieur le directeur maa ngi lay ziar bu baax a baax madame Absa Diène ñu lay ziar bu baax a baax monsieur les membres de l'APE monsieur Maïsila Algassimou et tous les membres de l'APE nous les di ziar di leen monsieur et madame les membres du mouvement Bay nous Waar de leen mon ami et frère Mara les ñu lay la chers parents d'élèves chers élèves au nom de l'APE l'association des parents d'élèves que je représente ici nous vous souhaitons tous et eh, bienvenue. monsieur le ministre la réunion d'ailleurs dajale fii importance parce que dañu fekkoon ci une déficit extraordinaire parce que l'école élémentaire de médine on est à plus de 800 élèves. Il y a des classes vraiment été ni Il y a plus de 65, voire 70 élèves donc l'arrivée des nouvelles salles de classe.

Euh, que je félicite au passage, au chef. C'est vraiment des gens très forts. Je voulais les remercier. Merci. Je voulais les remercier pour Bakoba. Je voulais les remercier. Donc, le contenu local, c'est un maçon qui habite dans le Tchoubou. D'ailleurs, je voulais saluer pour Bakoba. Parce que, les gens a un contenu local, on avons un challenge. Donc, il faut que je le maçon, vraiment, il faut que je le maçon, loolu dafa ci mais vraiment kontaan nañu ci di baax a baax Doudou moom fii doon na jàppale. waaw fii mooy Masson à l'école. donc monsieur le ministre pour jublu tuuti rek si quelques doléances yi ñu parce que école bi daal ci ba pare macha allah population bi dafay grande histoire donc les salles de classe fi mu ne à vous nous sommes à 14 de classe et il nous reste pour atteindre un peu pour arriver à 18 salles de classe, il nous faut 14 salles de classe. Parce que son objectif, moi, faire 3 par 6, 3 CI, 3 CP, 3 CE. Parce que comme nous, le président Bayon, on ne peut jamais construire quelque chose de grand d'abord par sous le petit. Donc nous, à notre niveau, on passe grand On a des choses à venir. Donc toujours sous les Monsieur le ministre, en plus de renforcer les salles de classe, ñu renforcer les table banc parce que dañoo bëgg aussi y a des salles yoo xamante ni seen table banc des na te am yaakaar ak monsieur le ministre ñu jot a wan nii vraiment incha allah rabi. waaye dëccu leen loolu waay dëccu leen loolu waay. gis nañ tamit gardiennage parce que école bi vacances yi du am sécurité te lépp luñ fi mën ci def tamit du sécurité kon day day revenir à zéro loolu bëgg nañ ñu si bu baax a baax monsieur le wàllu toilette bi aussi ñu sant yàlla wax nañu partenaire qui nous a construit les 300 places ñu koy remercier au passage monsieur Matar Sogo moom itam wax 300 places ak deux blocs de toilette il n'est pas là il est absent mais il voulait insister assister aux élèves il est absent ñu koy remercier au passage. monsieur le ministre classe bi mënu ma toog te du ma wax du ma féliciter particulièrement sama frère Mara Diouf. le président Mara Diouf est en ce soir. parce que bu soog a am borom. avant école di tijji dañoo amoon un problème parce que dañoo bëggoon fait benn salle avec nos moyens Nous avons fait un def benn abri en attendant école Mais comme bi ka Mara il a dépêché d'insister au ministre le ministre de mon problème comme il nous a promis il va le faire donc c'est un ministre qui tient ses promesses. waaye un ministre qui tient ses promesses. ki nga xamante ne lu wax def ko. donc au nom de l'association des parents et des parents d'élèves ñun ñëpp ñu lay félicité monsieur le ministre kontaan nañ vraiment ci li nga def te xam ne incha allah rabi lépp dina sotti incha allah. donc toujours si projet yi monsieur ñu ngi ñaan parce que dëkk bi comme dafay manqué bëgg nañ une deuxième école. mooy deuxième parce que deuxième école moom nii moom nécessité la parce que dañu war a anticiper ci wàllu njëriñ. aussi comme école bi day màgg xale yi allah ñu ngi examen di dem di dans les

ñun les parents de d'élèves ñun la la population de la République moom taalaane te incha allah rabi xam nañu ñu ci jàppale au plus vite. je vous remercie. waaye mani mani le fait que. maa ci bu ñu waa daal ci bu ñu jàpp la. ci bu bi tey dañoo créé mouvement ànd taxaw dëkk bi derrière Mara ci bu kon yaakaar naa ni tey mën nga wax ni am nga 80 pour cent jeunesse daal ci bu nga am daal jeunesse su Daaru Cubb nee nañ bëgg nañu seer si Daaru Cubb incha allah parce que suñu xale yi dañuy dox fii ba Tivaouane ba dox fii ba Cité des Enseignants dox fii ba ñaari ñëpp di seer loolu dafa métti monsieur le ministre suñu rakk yi nga xam ne yoo am ba ñu orienté leen fële seen i chaque jour dañuy paas dem Dakar dem jaay te loolu dafa métti yaakaar naa ni paas chaque jour dem ba Dakar métti na te sànq président APR e sànq puus na si mooy dinañ dem ba fu ñuy wax lu ñuy wax parallon dafa nar a dem am suñu école culture bi muy école élémentaire ndax bu ñu amul deuxième école élémentaire loolu foog la ñu mujjee ndax xale yi dootuñu jaar jaamu suba jaamu ngoon yaakaar naa loolu jëmul bëgg na nga jàppale ñu si baax nee nañ waa Daara Thioub de monsieur le ministre Oya Gueye danañu nax ñu ne nee na ko bu nekkee six mois yi nii la ministre di naxee bëgg defal nga ñu ko. def na ko dig nañu éclairage def na ko def nañu ko. dig nañu tay di ko def. def nañu ko ah suñu ñëw nañu de. ñëw nañu de xoos nañu ko. waaw waaw nee nañu lan mooy si naqar. Ah, ah. dañoo xoos dem ñuy poussière. Ah, ndax bu ngeen ñu ko ca yóbbu ñu ko fële. ñu koy àcc di ko roosale waa Cité gendarmerie poussière ba moo sonal. te yaakaar naa ne war nañu mën a roosale ñun poussière ba moo sonal. soxla nañu loolu baax a baax nga jàppale ñu si. gars yi nee nañu amuñu pharmacie. monsieur le ministre taxawal ñu si bu baax a baax laa jublu ñoom dañ koy football waaw basketteur yi basketteur yi ñii handball handball ñii bos bos kon yaakaar naa côté boobu war nañu si taxaw ñu am ñu sport ba nga xam ne basketteur yi dañ basket ñii handball dinañ handball. voilà ndeysaan damay xuus rek ma jaar si monsieur le ministre pour xamal ko ni ba ma liiree note de service bi ñuy joxe quarante yi ah man dama rus dama liir Koungheul ñu ne foyer deux heures ma liir ay ñaar ñu ne foyer deux heures. liir naa ko. ma liir mel na ci wut ñu ne ma école élémentaire lañ koy joxe. jigéen ñi loolu loolu yaakaar naa ne boo ci taxawee ndax fii lañ joxee pièces yi xale yi di jàng xale yëpp nekk seen xel si pièces yi pièces yëpp fii lañ ko joxe salle de classe bi. taxawoon nañ su foyer des jeunes suñu yaay booy yi bu ñuy réunion ñu am maison de la femme bu ñuy dem réunion yi. maison de la femme. yaakaar naa ne alors maman Africa mu ngi fi toog suñu yaay yooyu. moom mi ngi wax station. kon nag kenn amul ndox. ñoom ñoo góorgóorlu bu amal seen bopp ay potu lampe te ndox xam naa ne doo seetaan ñoom ñuy xuus di dem tuuti ndoxal seen bopp. walaay naa si wutal leen ndox waa Daaru station fële si ginnaaw terrain. macha allah ndox bi wër Daaru Cuub. ñu ne loolu mooy si jàppale monsieur le ministre. ah sëriñ si Daaru Cuub yaa leen moom. dëgg la yaa moom maanaam Cuub yaa moom mouvement bay suñu waat yaa moom incha rabbi boo defee loolu monsieur le président. dëgg la waaw monsieur di nga xam waa Daara Thioub fu mu teg Mara Thioub. dëgg la yaakaar gis ko wéddi gis bokk si la gars yi wax. da ngeen di sori Mara Thioub Mara le 23 janvier heure di nuyu suñu délégué de quartier di nuyu ministre Omar Gueye maire de Sangalkam ak délégation bi nga àndal di nuyu président Mara di nuyu sama càmmiñ sama xarit monsieur Alla Samb di nuyu sama yaay Malène Ndiaye nga xam ne moo ma tàmpatal tette ma ci yoon wi ma nekk tey ba ma ñemee ku ñemee dañ laa dee waa daal di jubbu maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp góor jigéen mag ndaw ndax jamono yi tey ku nekk gis na ni ñu génnee responsable femme yi bu ñu ñëwoon lim ñëpp ku lim jiw tey kenn desul ginnaaw démb ngeen ñàkk tam tey xëy ngeen yaa ngeen yaasa ñëw tertu ministre Omar Gueye waaye bisub tey bii lu yëngu lu nekk li ko yëngal kopp doole monsieur le ministre bisub tey bii tertu ya, nañ bokk koog suñu yaay Dieyla Ali bokk koog suñu papa Adiya Diallo ak Alla Samb te dara ñaawul ndax montre yu baax yi ñooy bokk heure dama ne la woon te Sangalkam ñun kii la ñu am mooy suñu consommé local te duma ci jóg benn yoon ñëwoon nga fi barki dem ba am nga loo fi fekk jël si nga fi tey yaakaar naa ne gan kenn mënu koo tere xool ak wut tey boo demee ba tëdd nelaw di nga xam ne fii ñu nekk

wallaahi. ñu ne tekk nga ne semaine ajjuma ñu toog 3 heures maanaam ah, ne ah ñëwagul de waaye am naa yàqin ne du may nax ma ne ko du la nax ndax ministre ba nga moom neewoo xati waa dëmb na neewoo ko mais ngay matu neewoo dama joxe ci première kabo. ful la nga ko woon jom fayda mu dund koog yow. ministre keroog ba nga ñëw suba lay lamp yi daaru kenn doxatul di daw kenn agressé ku dootu fi. monsieur le ministre barki ne mu suñu sàbbi cent millions baa ngi nekk ñu bëgg nga dolli ñu. waaye tàccu leen loolu waay leen loolu waay fi nekk fajar la ci bëgg ñu dalay góor. yéen fii jàngee yéen sama papa yéen na ma tudd ma ñëw tey ngay ñëw laajoo kenn juróom laajoo kenn fukk tabaxal ñu salle de classe yu mucc ayib yi yal na sa jàmm yaa ko. te teelu di ngeen amum ndox ba nga ko waxee am na naxee mbaay ma leen ah yàlla nuy nax sa nax gi yàlla bu dakk dee. nga ànd ak yónnee fa nag délégation bu am maanaa ñu ànd ak ñoom sëñ Fallou Galas Ndiaye ak équipe bi fi nekk daal président Mara ba kër mu leen. ñu natt ko ndox mi ne man de damaa namoon sas ba ma jógee fa jàllaa gëj a sangu ci sas xam naa sangu ci sas ndax loolu naa ndeysaan fi génn léegi sama doom di Aliou Sall danee beneen école ma ci loolu de si daan enseignant dafa sori ñàkk doom dafa xëcc démb lañ fi violé suñu dafa jàngi ba mu ñëpp yaay ju nekk yaay nga te doom ju ju nekk dafa am lu yaay di xaar loolu dañoo bëgg nga taxaw ci buñ leen buñ ñu ko dig di koo dige ndax bi ñu la waxee salle de classe yi mën na ngaa ñëw teg première pierre waaye dafa am lu ma jàngat ci yow la Youssou Ndour doon wax liggéey laa daal immigré immigré rek ngay def jëy yow doo teg première pierre monsieur le ministre ah femme yaa ngi nii bëgg formation ñu meloon na man ndax macha allah nangu dañoo liggéey jàppale ñu ci ay formation jigéen ñi liggéey ndax commerce du ñëpp ko mën sama classe bii mënuñu commerce surtout loolu nga naa nam ñu ne Sogo si moom yaa ko moom waaye nag des na yaa daaroo koy xëccoo de emploi de jeunes yi ay yaa ngi liggéey ñu suñu doom leen ñu liggéey monsieur le ministre ñu yor ay baga fi nekk ay doctorat jàppale leen ñu liggéey suñu papa yi màgg nañ tey mënatuñoo yor kër yi xale yi yor mm-hmm. soo ci jàppee mu nekk ñuy ëlbatiku waat di la dénkaat suñu doom ji l'homme social. ndeysaan ñu koy waaj a tudd de mooy kan. xale bi juddoo ci dëkk bi. mooy kan. te neewuñu naxe mbaay. mooy taaw. ñett a judd ñett a baax. wallaay ndeysaan. maamam sax kon dem leen ne tudd gii. maam ja fond ba ñun bay fale dañ naan la ca maam ja sët baa koy doon tam gaay borom lay doon. yow Mara. ñun dañoo yéex a jot ci yow ñoom milieu bi dañ cee yéex a dugg bari ci dem dafa am kuréemaa école bii ngeen di immigré ci suñu biir tale woon ma ne ko yéen dem leen ca sax da ngeen a talee da ngeen fekk ñëpp mënu leen da ngeen a talee dem leen ca sax maanaam mi ñëw tey woon ko di fu la fay dangor lan bëgg defal na ko ko ministre population bi nga jëlal ci ko di nii waxuma la 23 de mais bu la neexoon suba di élection yi ñun pare nañu mu ne ma man de damaa sonn ci campagne yi ma ne ko utal ko taw tiis fatt say nopp ñun de bilan la ñuy def ndax dañoo liggéey na ngeen amoon ñeen ñi ñaa nga mbaam mi loor ñeen ñu dem ba daaroal fa jënd fa ay hectare sànni ko fa te loolu moo mel askan wi la woon foyer ñun fii lañ dëkk ci dëkk bi ci surtout jaana bii lay dooman. des na ko koo jaay takkee koy jabar jëndee koy consulateur. aywa aywa aywa. loolu daal maaraay bi. maaraay bi parti bi fekk na ko mu tabax këram. fekk na ko mu jënd këram. ndeysaan mu sa jàkkaarloo gaw na la kër laa ko wala wala laa ko. li ci des nag mooy ñett yi ma la wax. CM. salle de formation bu ñu formé suñu jigéen ñi. ma jàpp suñu doom yi ñu liggéey ñoom ñett na. suba suba pare nañu pare nañu pare nañu le 23 bu soobee yàlla 4 heures ñu ñëw ndam rek. jërëjëf. Chers invités en rangs et qualités. au nom de tous les élèves de l'école élémentaire de Medina je prends la parole pour céder la bienvenue. Chers autorités, vous avez le privilège d'être là au premier rang du fait de votre valeur qui témoigne de l'excellence et le fruit du Seigneur et de l'effort soutenu. Monsieur le maire, Aujourd'hui, nous assistons à l'inauguration de classe qui viennent au moment où nous en avons le plus besoin. Une le nom de dans les classe. Nous vous en sommes très reconnaissants, On laisse à savoir que malgré tous ces efforts, les problèmes de l'école à Medina West entier. Car chaque année, le nombre d'élèves augmente considérablement et beaucoup d'enfants de dans le quartier ont des difficultés à y Ce dont nous avons besoin actuellement, c'est une deuxième école élémentaire, un collège d'enseignement moyen et même un lycée, vu le nombre d'élèves qui réussissent en entrée en sixième. Nous rendons à cet effet un vivant hommage à tous nos enseignants qui ne ménagent aucun effort pour notre réussite. Merci de nous avoir donné l'occasion de nous adresser à cette si auguste assemblée et de nous permettre de transmettre ce message. Soyez remerciés pour votre évaluation. Alors, jiital si chef de village bu Sangalkam Allah du Fouta Diouf Nous sunu papa di jàmbaar ci kër Ndiallo ñëpp ñu dëkk ci commune de am xam nañ ko muy gaynde gi toog di El Hadj Samb di nuyu itam beneen kilifa bu ànd ak ministre Oumar Gueye muy sunu papa Ousseynou Diallo yaakaar naa bu ñu nuyoo ñii ci kilifa nuyu représentant IEF nuyu nañ ñëpp ñu topp ci délégation bi ah, ñoo ngi nuyu nag bu baax. kilifa yi nga xam ne ñoo dalal ministre te ànd ak Mara di si jiital sunu wayju muy Serigne Fallou Thioum muy sunu kilifa di kilifa goo xam ne dafa jëlaat lépp delloo ko ci taalibe oyof gënal ko lépp lu mu lu mbooloo bëri bëri ils se font dans la masse moo ngi na ci ginnaaw moo moo sol ko fati bu maraw bees bi le di nuyu sunu baay di imam di imam Sidi Ndiaye moom bi mu yëkkatee kàddu gi si ñaan bu ci yemoon rek man dama naan bi mat na li fi nit ñi wax ñëpp mënuñoo génnaat li mu wax kon ñoo ngi koy bu baax bu ñu ko nuyoo ba nopp dama bëgg santal président ma délégué de quartier yi président ma xam ni yéene bi nga am si ñoom lottu nga ci sant leen ma lay jàppale ci sant boobu ndax délégué de quartier seen président jiite leen muy sunu papa Abdoulaye Diop ak. le secrétaire général di Jumaana Sissoko ak seen porte parole di Mor Mor Thiaw ak mboolem délégué de quartier yi nekk ci biir seen taxawaay ci biir dëkk bi rafet na lépp loo xam ni président Mara yëkkati na ko ànd ak le ministre Oumar Gueye kenn jiitu leen si barki Demba Ndiaye dama dégg sànq am ko wax ne dëkk bi dafa amul ndox. kooku coono bi mu doon dund commune de Jaxaay ba tey moo ko bàyyeegul ndax nag monsieur ministre doléance yi nga dégg fii yëpp nga dal sa xel ndax doléance yi du dara lu dul dañoo jàpp ni ba tey ñoo Jaxaay. waaye tàccu leen loolu waaye tàccu leen loolu nga xale boo ko tàmmee di fitnaal boo ko tàmmee di fitnaal di ko fitnaal di ko fitnaal. dina dem ba turu ki koy finance bu ko déggee rek day naw loolu moo dal dëkk bi ci commune bi ñu nekkoon moo tax ku ñëw di jàmbat ndax dañoo yàgg a jàmbat te saafara ñoo ngi lay sant di la gërëm benn na cub dama bëgg ñu am xel mu dal jéggi naa la ministre parce ki nga xam ni 17 millions de Sénégalais ñoo jël tant ko muy son excellence le président de la République du Sénégal di Macky Sall moom moo jëlaat ministre bi nga xam tant nous Oumar Gueye tànn ko kon a yaakaar naa bu ko nous tànnul itam 17 millions de Sénégalais ont ñoo La fille ndax 17 millions de Sénégalais yëpp tànn moo On tànn kon un ministre Oumar Gueye de la nag waxuma ci Sangalkam mais ci département de Rufisque ñun dañoo war a sakko chaque mercredi conseil des ministres bi am doomu gox bi jugee ci bokk te ñi nga xam ne dañuy bokk ci conseil des ministres boobu loolu sax la ma ne doo gis or di wër përëm kontaan ci loolu waay kon ministre Omar Gueye taxul ñuy wax waa xom ñaay la xajul ci pantre loolu aussi président Mara gis nga ñuy topp sa ginnaaw yëpp yaakaar la ñuy toppee sa ginnaaw da nga leen ko wan nag da leen ko ji juróom-ñaari at ci ginnaaw bëri na ñu fi dégg tey seen ñetti at ci ginnaaw ñaari at ci ginnaaw kenn déggu leen ko boobu politique jotu kenn laajul ndombal tànk kenn yootuwul lu am te ku am. lenn loo xam ne soxla nga ko ci biir dëkk bi waaxu ñëw sa kër seet si la. directeur da ko firndeel directeur bi mu amee gis-gis ni dañoo war a am yeneen salle de classe am na ay autorités municipales yu fi nekk waaxuwul dem seen kër waaxu ñëw sa kon yaakaar bi foofu la am. alhamdulilah. ba yaakaar boobu noonu bi ñu ko yaakaar ndax da ngaa ànd nag koo xam ne ah du tas yaakaar. la solution boobu kon mi dina jub nañu xam ne juróom-ñaari at yee ñu dundoon jaxaay juróom-ñaari at yooyu noonu moom wóy na métti bi fa am yëpp du ma si ñëw poste de santé bu Médina Thioub toog nañ bés paracetamol amu fa. Daaru Info bii di jël kii di filmer tey muy Daaru Info moo feebar am boobu metti dem poste de santé ba bëgg paracétamol amul paracétamol mu jël téléphone woo président Mara ne ko sa de santé amul paracétamol te pourtant boobu commune de Diakhalé nekk ay autorité ñoo ngi fa premier adjoint mën naa ni maire bi daaru la dëkk jàkkaarloo sax ak ak poste de santé bi jafe-jafe jooju noonu bi mu koy wax président Mara la ko wax lu ci président Mara deux millions soixante dix mille la génne deux millions soixante dix mille la génne def ko ci poste de santé bi mun naa ni poste de santé bi donc doy na pharmacie dëkk bi dégg naa sànq am ku wax waxi pharmacie ci at bii ñu nekk muy deux mille vingt deux incha allah pharmacie dina am mais dina cukk loolu da am lu ko waral li ko waral mooy kan mooy le ministre Omar Gueye le président Mara Thioub dañu ni population bu am 6000 habitants am droit am pharmacie Daru dépassé nañ 14000 habitants boobu ba léegi kon war nañu amoon am pharmacie li tax amuñu ko mooy amuñu woon ay ndaw yu ñu mën a wala di yóbbu jafe-jafe dëkk bi fañ ko war fañ ko war a defuñu ko bi ñu yàlla ñu dem Sangalkam bi ñu ko amna lo xamni bu xey lijeenti dina ko wax amna lo xamni bu xey lijeenti du ko wax pharmacie boobu non ngeen yëg ko ngeen ñako koo ministre Omar gay moko démarche démarché ci ak le président Mara Touré président Mara deug bi sant nañ la deug bi gërëm nañ la wayen sant leen président Mara président Mara santal ñu ministre Omar gay

yëpp yëpp yëpp yëpp xoolal ku ci nekk. waay waay waroon ci waay. la mel na ci guddi am incha allah ministre Omar Gueye boo yéexee tuuti ñun 17 heures wala 16 heures demi dinañ ñëw vivre avec 99 pour cent ñoo fekk la Sangalkam. macha allah macha allah. délégué de quartier yi nga xam ne ñoo fi teew defe naa 12 délégués yëpp amul kenn ku manqué lii day wane ne rek. mais dinañ ci biir ñoom la leen. monsieur le ministre maa ngi lay wax ne délégué yi nee naa leen ñoom dañuy jouer comme un rôle conseil municipal fii ci loolu soo teewee faaw ma wax leen ñoom seen taxawaay. délégué Gassama defe naa mu ngi toog. waaw waaw. maa ngi lay jégalu. daf ma demandé woon audience ci ministre pour sant ko moom ak bi nga xam ne dañu inondé woon. ministre xam naa temps xaw na jàpp mais inauguration de Sanda Kalaas dinaa fexe nga jël parole sant ko. soo ko sa temps maye nga may ko sant la gërëm ndax mbégte bu mu mën a feeñal. monsieur le ministre ñu di nuyu di sama papa Baye Assamb tàccu leen loolu di nuyu Alaaji Suka Diouf c'est le village de Sangalkam di nuyu nag koo xam ni mën naa muy Ousseynou Diallo Kounoune Ngalam. ñi nga xam ne tey dañoo gëmm seeni bët ba mënuñoo xa xool leeraay bi nga xam ne moom mooy bal def na ci rôle bu rëy taal na otoom guddi di leen jéem a gindi waaye nag xëy na noonu la mu doon demee kon ñu lay sant bu baax. monsieur le dañ lay sant tey tey du ma def benn discours politique dañ lay sant waa Médina Thioub jërëjëf dafa nekk ba doo xam ne dafa gàtt lool waaye bu liggéey doo xam ne kon ñu ngi lay wax jërëjëf Médina Thioub yëpp ñu ngi lay wax jërëjëf gis naa sax waa Yewwi Askan Wi dans cette publication de remercier monsieur Diallo pour deux salles de classe Donc, vous buñ remercier remercier le opposition ici nous boppam remercier M. le ministre. lii mën naa wax ne mën nañu wër commune c'est boo ci commune de Sangalkam Kamla. bëriwul de kon monsieur le ministre ñu ngi lay sant bu baax di la sant ci jafe-jafe yi mel na ci bu am nga taxaw si ma jàkkaarloo ak yow rek baat bi nga ma waxoon rek laay fàttali muy mel na ci dama ko bor mel na ci sama dëkk kon wane nga ko nekk xam sa dëkk bi dafa màgg macha ñoo am ay jafe-jafe ndox ma ñëw ne leen incha allah mois de mars ndox mi nañ ko natt dina fi dugg avant ñuy dem élection nga yónnee ñu natt quartier yëpp budget ci cinquante cinq millions nga génne xaalis boobu pour Médina Thioub kii bëgg na Médina Thioub beneen bi ma ci gën a neex nag surprise la ma defal moom muy ban daf ma woo mara ndax yaa ngi Médina Thioub ma ne ko waaw mu ne ma xaar ma dans dix minutes ma yegg am ku wax ma li muy dox ma woo kilifa yi mu ñëw mu ne ma ingénieur yi ngay gis ñoom ñoo fas yéene defar tali bi Médina Thioub ba Sedima may leen ñu tudd waay. loolu foor na. monsieur le ministre. delluwaat si waxaat tali bi dafa neex mën nañ ciy dellu fii ba suba. ndax ay mbéyte lañ koy wax. di xaar. mel na jub dem Sédiment ku nekk xool nga jaar Kër Massar amate am fi say am. dëgg la. defaraloo na jub kese de. defal nga ko commune de Kër Massar defal nga ko département Rufisque defal nga ko sax région de Thiès ndax ñi jóge ñaay boobaa fii la ñuy jaar ambiance yi dem Dakar quinze minutes di sant nag lingeer yi nga xam ne ñoo nekk sama ginnaaw yëpp ndam rek ndam ku ko amul doo ndam nga xam ni inauguration TER bi monsieur le ministre bu woote ne dama am koo xam ni dama ko fonk muy kan son excellence président Macky Sall buy ñëw di inauguré commune de Sangalkam dama bëgg ñëpp génn mel na ci wu ñoo leen waxee macha allah génn ngeen li ma ci gën neex nag dafa am kilifa bu ma woo ne ma xam naa dépassé nga xaalis bu bëri amul kenn ku si jox 1000 francs ah waaw yaay gor. kon monsieur le ministre ñu ngi lay sant bu baax. ci liggéey liggéey mel na ci. baax dañ laa bëgg tey soo ñuy wax ne day naxe. Nega nga ñuy naxa yàlla na continuer te mbir na cub bii nga defar nañ dem fii ak ay weer yu néew yow sa bopp di nga gis changement maa ko wax fii parce que nag ku ko fonk ku nekk ñu fonk la mhm. xër bi nga xër si président Macky Sall suñ ko bëggoon dix bëgg nañ ko cent ngir sa jëm. waaw waaw amatul lenn loo xam ne des na ci ñun dañ koo bëgg cent pour cent ngir sa jëm ngir wut loola neex ma ne ñëpp nañ def bees marron. waaw waaw marron bees. ñëwal taxaw ni yow. li doon defe naa mooy couleur parti bi monsieur le ministre. waaw waaw. ci lu mel nii lañ bëggoon. waaye ku ne. mënu cee jot. askanu Sénégal bañ nañ Macky Sall génnaat génnaatal. li koy firndeel mooy. non génnaatal marché HLM. bi amatu fa. amatu fa amatu fa. wóor nañ ba tas amatu fa. kon ñii nag ngay gis ci ay zone maroon lañ doon. amuñu ko jaaree marché bi ngir le président def ko. ñaata mbubu. ñoo a seede ñun la yónni woon ñu koy gindi wala marché yëpp daa màcc. may a la jëlal. kon bu baax. jeunesse bi. wax nañ foyer des jeunes. am na ko de. Bodiai. lotissement bu Diané Diagne bi. dagg é. foyer é jeunes. ñu wiñeeku dagg ci foyer bi jaay ko. espace não nan la ko É ñi jaay. injustice boobu. bëgg nañ nga faj la ko nu mu gën a gaawee. ministre man lu ma lay ñaan tey mooy collège ndax nag sunu rakk yi sonn nañ trop ku xam ne ne dëkk bi ñu ci bëri la ñuy góorgóorlu bu yàlla dimbalee nga am ñetti doom yoo xam ne dañuy jàng nga war leen jox paas ñu dem ñii dem Kër Massar wala ñii dem Cité des enseignants wala ñii dem feneen y'a problème. monsieur a ministre man de gëm naa ne dinañ ndax bi ngay nekk président comité rural. woon woon nga ñu fii jeunesse comme ni ko def bi yëpp dëkk yëpp amee nag. noppi leen muy tool Moussa Ba bii nga ne xool leen espace ñu jox ko jeunesse Médina Thioub mbokku daaru Thioub asalaamaaleykum population Ndar maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant may tàmbali nuyu sama ñaari wóllëre di El Hadj Fane Thioub ak Serigne Sidi Ndiaye di nuyu délégué de quartier Daaru Thioub yëpp. Abdoulaye Ahmed Diop vice-président Nouadhou Sissoko Amadou Faye Moussa Gassama Mamadou Ndiaye Ahmed Dia Mor Thiaw Aladji Mbaye Jean-Louis Abdou Sène Amidou Pam ak Moussa Dembélé muy fukki délégué de quartier ak ñaar te ñoom ñëpp ñu ngi fi teew di nuyu imam yëpp te imam Sidi Ndiaye jël kàddu ñaanal ñu bi ñuy tàmbali suñu cérémonie di nuyu bu baax également président APE Cheikh Anta Mbacké du nuyu directeur de l'école Ahmed Tidiane Ba di nuyu ki nga xamante ni mooy Aliou Sall di jiite benn kuréel mouvement présidente des femmes Ndeye Amy te tey mu tudd Ndeye Amy Gueye président gouvernement scolaire Seydina Mohamed Sarr Mariama Goudiaby dit Maman Africa

gis naa sa taxawaay gis naa ni nga téye daaru cubb ku wax daaru cubb ni maara cubb ku ni maara cubb ni daaru cubb loolu mooy li am gis nga nit donc koy reconnaître am ay qualité ak lu yàlla def ci moom maara cubb kiñ ko tuddee kooku man naa ni moo ma dalal ci politique xam nga jamono yooyu nag moom turam sax ñu war a ñun xamuñu ko woon nga dañ ko daan gaynde tudd waaw mooy maamu mara tudd mii maa ngi fàttaliku boobu ay xale yu ndaw lañu ñaar fukki at ak juróom ci politique eh, bi ñu ñëwee fekk ko ci mbaar moo xam ne mu mag la néegu ñax mu dugg présente ko tàllal ko samay loxo ni ko ñaanal ma damay dugg ci lu jafe muy politique ndax jamono ay kàngam yu fi nekkoon ci département bu Kébé mu ne ma toogal ma toog mu ne ma tàllalal say loxo mu tàllal sama loxo mu ñaanal ma ñoo barke sëñ Fallou demal sa yoon

wax dëgg yàlla daaru Touba ak surtout lié nañu complètement kon ñu lay gërëm di la sant ci taxawaay boobu di wax ni déglu naa leen bu baax tey jii inauguration lañ doon ñëw di ko def ci ñaari classe ñaari classe yooyu nañu historique bi ci suñu grande sœur Dieyna def moom it maa koy gërëm bu ci taxawaayam di gërëm inspectrice de l'éducation de la formation madame Fatoumata Diallo madame Dral di wax ni inauguration bi mat na sëkk ndax man bi may dugg Medina Thioub tey bi may dugg Daaru li ma gis ci mobilisation nag mosuma ko fee gis ñëwoon naa fi ñëwoon naa fi y'a peut trois mois mu lëndëmoon këris dëgg la dëgg ba boo xoolee penk mu lëndëm nga xool sow mu lëndëm xool bëj gànnaar mu lëndëm nga xool bëj siin ak saalum mu lëndëm ma ni leen may leen ma diir moo fi ñëwaatee dëkk bi dina leer yaakaar naa ne dëkk bi leer am na nag ruq yu des mais dalal xel ñooñu yeneen ruq yooyu incha allah ni lii leere ruq yooyu ñooñu leer également seen doléance yi dégg naa wax ngeen ni bëgg ngeen yeneen ñeenti salle de classe pour montali wax ngeen ni bëgg ngeen seem ban moo ci ëpp priorité pour vous. ñu defar de classe yi. wala ñu defar seen. la solution est là. jàpp leen ni am ngeen seen.

dinañ ci jël tabax ay salle de classe doon seen bu Medina Thioub. su ma leen ko waxee ngeen war koo gëm. suñ ko woon wax lu lu lu lu jotaay bi ba mu ba mu ba mu wax loo xam ne moo dellu soixante ngeen ma yaa ko fi waxoon déedéet. kon jàpp leen ni am ngeen seen. wax ngeen problème mu am nañ ci solution. ci paas beeg dem dikk bi. ci ma leen di wax nii léegi ñu finaliser benn immeuble à Dakar boo xam ni R plus 4 lay doon. très bien ñun ñoo koy jël en charge yi amul néeg. Üniversite Emniyeti'ne müdürlüğü. Eren Yuvan Farmasi bi. Daaru Tubu de Maram Farmasi. Mani loolu tàmbali naa cokkaw nag sama nattangoo ci gouvernement bi muy Abdoulaye Diouf Sarr.

ñu su amee su ko defee nag dafa amoon parce que dama dégg ñuy wax affaire espace vert yi jaay espace vert kenn du ko jaay ma su fekkente ni place boobu am na kenn tabaxu bu ko est-ce que tabax Nous sommes lu fa désaffectés avec des jeunes. financement des femmes président Makissan, il li mu pour financer les familles. de la même manière aussi emploi des jeunes xëyu de yi nga ko 450 milliards par an par 3 ans 150 milliards par an yoon bi ngeen xamul mais yoon bi c'est très simple. Il y a un jeune qui le maîtrise ici Chambre Mon mooy pôle emploi au plan technique dans le département de ngeen ko voilà jeunes yi da ngeen leen en relation avec Chambre il est là. C'est les ñu war leen yoon ngeen di am ay financement pour les jeunes emploi ak employabilité. merci monsieur le ministre. les inondations. c'est un problème difficile. du mel ne cubb rek. déedéet. boo demee maa nga fa. boo demee Kër Ndiaye Lo. maa nga fa. boo demee Kounoun. nga fa. maa nga fa. boo demee Zac Maintenant, il y a beaucoup d'inondations pour régler le problème des inondations donc on régler par deux donc on régler globalement et globalement le projet existe c'est le projet 2 le projet de gestion des eaux pluviales et de répression au changement climatique du président Macky c'est 100 milliards de francs CFA déjà mobilisés avec les partenaires au développement dans la Banque mondiale les 15 milliards pour lañ donner ici fii ci la phase d'urgence eh bien toute la zone jusqu'à Bamilo va être prise en compte par le projet de très bientôt à nañu pour faire les études vais voir ADM agence de développement municipal mais on va de quitter là. ci tout de même bi dina am ay de jafe parce que day fekk liggéey de parewul

Mais bien a des ce sera un mauvais souvenir. Pour Nohmi, envoyez une équipe. N'attendez 55 millions. 55 millions, amenez-le. Lancez-le, lancez pour entreprise bi ko war a def mu defar ko pour que ñu problème ndoxu délluti bu kenn doon ko fekk mu nekk loolu. li ci des nag mooy ma nuyu koo xam ni wax dëgg yàlla dafa am symbole la ci biir nit muy notre doyen Adiye Diallo. tàccu leen loolu waay tàccu leen loolu waay. gis nga kooku.

ñoo gagné ko gagné ko deuxième tour kon ñii ay référence la ñu ñu leen di gërëm di leen indil nuyoo président Macky Sall bu baax a baax a baax li nga xamante ne nag mooy fi ñu jëm ñaar fan ak ñett ci weer wii soreetu tey la combien. le deux. oui donc ay fan ci des. alors c'est très important le 23. yéen a amal la man damay am laaj rek yéen a ngi woon ci lëndëm pendant des années en quelques mois ngeen jóge ci lëndëm ñëw ci leer est-ce que da ngeen bëgg a delluwaat ci lëndëm dellu continuer ci leer beri la tudd xanaa day zare xanaa day zare ngeen di jooy pour am tali tey jii grâce au président Macky Sall ñu ngi leen defal tali boo xam ne fii lay jógee kenn ba si dina mais du loolu rek parce que tali yooyu dafa laal tamit cité enseignant dañ koy goudronné de pour assister enseignant face Kounoune 30 mètres yi dañ koy goudronné sédiment romb central Kounoune ba ba ngay dem wàcc ci un point le bi jóge ci pont Kër vous Sarr bi dañ koy goudronné. cité yi nga xamante ni ñoo nekk autour de la marine française tout ça va être goudronné. ce sont des milliards des milliards le président Macky Sall débloqué pour régler définitivement le problème du désenclavement. bi nga xamante ni. donc ñooñu loolu ñu nga xamante ni moom la président Macky Sall defal Médina Thioub kon kooku waa Médina Thioub dañ ko war a jàpp waa Médina Thioub jàpp ko nag mooy lan mooy liste président Macky Sall moom taxawal ñoo xam ni man maay tëdd liste bi majoritaire Baye As nekk ci proportionnel maanaam tudd nekk ci Alla Samb nekk ci Délali nekk ci Aminata Seck nekk ci Mariama Goudiaby nekk ci ak seen suppléant. liste boobu nag wax dëgg yàlla daaru. liste bii leer na daaru tudd. liste bii defar salle de classe daaru tudd. liste bii defar yoon daaru tudd. liste bii indi ndox daaru tudd. liste bii indi collège daaru tudd. mooy liste bu baax bi man aw ma ci benn xarit fii moom mbokk nooru mari mari fii ne mara te jarul ñu ñëw fii dëgër naa fii dëgër naa fii dëgër naa fii dëgër naa fii dëgër naa ajala naa moom bi la bëgg mu xawee waaw dañu bëgg taux bi kawe daje moom alaaka loolu ñuy wax sax. daje moom day am fii incha allah mais. pourcentage bi mag. 90 95 pour cent. 5 pour cent yi di def ko asaka. plus de plus de.

Les données ont changé. Les données ont changé parce que vous étiez à la commune de Gahaï, vous n'êtes plus à la commune de Gahaï. Les données ont changé parce que quartier Bressigny ci arrondissement de Sangalkam commune de Sangalkam ku indi sa ancienne carte bis bu vote bi naan da ngay voté doo voté et c'est dommage que nous perdre une seule voix.

projet bi mu gën a rëy Sénégal le port de Ndayane maanaam. population bi ñëw président Macky Sall. nombre de temps yi mu laaj jël ko. dina ci war ñu ànd comme président assisté ko ba pose les premières pierres am port de Ndayane. donc ñu leen di gërëm ñu leen di suñu kanam nekk ci suñu xol yi ba nekkal ñu fu ñu nekkoon Kifne TV Sénégal